mu ne fa xatawun njumteeli cheikh ñeel sëriñ bi ak xaw moo gën a jub wa al yaqu moo gën a yàlla mel mu ridi si njubam taalibi bi mën a xala ci ko am xat njumteeb sëriñ bi moo gën njubab taalibe bi ndax sëriñ bi dafa mat taalibe bi dafa manqué te ki mat mën naa def luy niru njumte fekk njub la ki manqué nag mën naa jàppee dara njub fekk njumte la xadr toj na gaalu xale ya ay miskin lañ muy niru mm, tooñ waaye fekk dimbali la ndax bu ko tojul woon am na buur bu nekk ci kanam mm, dégg nga mm, bu gisee gaal gi daf koy nangu te ñàkk gaal nag am gaal gu am ayib moo ko gën su ko defee euh, critiqué nañ ko ci loolu waaye xam nga ne topp xadar moo gën a jaadu topp ko koy critiqué jële ko koy critiqué ku mat la laa taltafit bul gertu li xëy ri ñeel ku dul sëriñ bi fi aalami ci mbindeef yi wala ci àdduna bi وكن نكال كما لو كنت كومبو نكون دون عالم ورش من دفي ندخ فلي سنكوت جل مريد نيل طالب بي غير زل ولي لول ولي بي مع الرسول عند يونت بي سو مولا او توب برمم انا باجي كما ما دام فيك صحنا غيرهم كل نيوم بقلب تي لا ينال دو معرفه مولا خم برم بي اقول دنا واخ لول بير تجار شي تيتير مرام شي جورو <clears throat> شي لول خلات وكن نكن ماشي خاندك سرين بي دوام شي تقو تربحو دنا بنفيزو wa kun nekkal muhibban daa ji bëgg waamiqan daa ji sopp fa tuflihu nga texe ndax bi qadri ma tuhibbu ci kem ni nga ko bëggee tanaalu ngay amee am daadu ay tëbbam fal qawmu gaañi haza li qaalu lañ wax mbëggeel mooy maye yokkute mooy maye dégg nga ndollal mbëggeelu taalibe bi sëriñ daal mooy bëtërëm comme bëtërëm oto oto bu bëtërë ba yàqoo rek mu paan waaye bu bëtërë ba baaxee mu mën a dox taalibe it bu mbëggeelam sëriñ bi cee mu dog sayroom du continuer waaye fekk mbëggeelam nga am rek sayru baa ngi continuer yàlla yàlla may mbëggeel xaq qadri wa miqdaari azim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh